damay naxarlu bu baax a baax li nga xam ne xew na ci Casamance te démb ci suba ñu yeeñu encore ci yeneen incident yoo xam ne wax nañ ko muy ay attaque ay jigéen ci jëfin yu ñaaw yoo xam ne jarut sax di ko wax fii tellement dafa ñaaw jigéen ñoo xam ne dañu yor gànnaay te xale rek la ñuy songu ak jigéen yooyu doy nañ waat muy loo xam ne jarul sax di ko explication c'est choquant ñu jéem me expliquer lu même jarul sax di ko justification parce que lu mel nonu ken mënu ko justifier il faut que nit ñi à un moment donné ci sunu histoire ku nekk nga assumer ses responsabilités historiques ci li xew mënuñoo expliquer wala justifier lu mel ni man duma ko def ragal du tax ma def ko dina continuer di dem Casamance ni ma fa daan demee ragal du tax ma wax lu ma xalaat parce que ma famille là àndal ak sama doom na dal donc question casamançaise de war a bàyyi di ko caaxaane di dem di justifier l'injustifiable wala di expliquer l'inexplicable waruñ ko def ou mën a ne loolu mais ana kan moo xalaat lu mel noonu toog fii di ne ñu ngi def pont pour Casamance te ñu ngi def fofu ay diggante Ziguinchor ba légui mën ngaa jóge Ziguinchor dem ba Velengara MCA fofu lu ñu njëkk a liggéey daanaka man gis naa li nekk Velengara gis naa li ne Kédougou gis naa li ne Kidira gis naa lu ne Tambacounda gis naa lu ne Bakel gis naa lu ne feneen dans le nord du pays ñooñu ëpp jafe-jafe il faut pas qu'il soit plus digne que nous ci walu muñ ci walu gore mais l'IAM, c'est pas les Ce c'est pas la Casamance Casamance c'est tooñ Casamance du c'est Casamance du tooñ waaw Casamance mais du tëba c'est rek tooñ c'est